ginnaaw bi ñu ko tegee woon loxo ngir ab vidéo bi mu publier woon jëme ko ci imaamu Léona Niassène bi ñuy convoqué woon ngir ak julli gu mu amoon te buñ fàttalikoo rek bi mbas mi duggee ci réewum Sénégal dañ doon tere lépp loo xamante ni ab dajaloo la daan am ci jumaa yi ak ci jàkka yi ak ci yenn place publique yi ba taxoon rek ñu daal di convoqué boobule imaam ñu gis na nag kii di Abdou Karim Gueye di alliance xurum xaax daal di publier woon ab vidéo ngir di naqaru loolu jàppoon ko le 13 mais bii ñu génn ngir. tëj ko ñetti weeru kaso moom Abdou Karim Gueye alliance Karim Xurum Xaar ñu xamle woon ne dañu ko tëjaale ak pervision buñ sukkandikoo rek ci activiste bi di Guy Marius Sagna doon na si dox nag ay jéego ngir ñu libeere ko ak kii di Ahmed Khalifa Niass ak njabootam gi yépp waaye tey jii si àllarba ji yemoo ko juróom-ñetti fan ci weeru juillet bii ñu nekk Guy Marius Sagna nag daal dinañ xamle ci page Facebook am ne bàyyi nañu kii di abdu Karim Gueye alliance Karim Xurum jamono ji nag Abdou Karim Gueye daal dinañ koy libéré dinañ ci dikkaat ci suñu yeneen i jotaayu xibaar